moom daal ki am jàmm Sénégal mooy kiy gis lu bon te noppi mais boo nee yàlla waxut lii ñu naa ah, yont yàlla saalix avant ko yàlla yónni daa maandu dafa toog ci dëkk bi waxul kenn dara parce que amul ndigal mais bi ko yàlla yónnee mu ne yàlla nee na ba leen lii def leen lii luñ ko wax eh yaa saalix qad kunta fii naa marjuwa ah, atanhaana xoola luñ ko wax saalix yow ku ñu amoon yaakaar yow xale bu maandu nga woon mais léegi nga commencé naan ñu yàlla nee na kon ku ne rek maandu woo fu nit ñi defee caaxaan la kan mo mandu Sénégal moy ustaasu suppu kànja bi nga xam ne dagan na ci moom ku xew la rek muna a ci diine mbokk yi ñu islam borom xam-xam yoo xam ni dagan wallahi minhum kharajatil fitna wa ilayhim taud fitna bi yépp ñoo def ustaas yi nekk ci rajo yii di ut li neex këru diine yii boo defee émission këru diine bu nekk nga tegi wayam tegi caaxaanam tuddee ko diine islaam naxoo kenn sa bopp ngay wax ndax waxaloo muhammad de waxaloo diine de waxaloo islaam de ndax lii ngay saxal islaam saxalu ko lii nga bàyyi mu jàll islaam bàyyi ko mu jàll ba nga amee xam-xam borom bi nee na ku am problème nga saa boo jàngee diine ku am problème la ndax amoo droit nga noppi da nga war a wax la tubayyinunnahu linnaas wala taktumuuna borom bi nee il faut ngeen jël seen responsabilité yéen borom xam-xam yi yéen ustaaz yi il faut ngeen wax même bu ñu leen rayee wax leen bu ngeen ñëwee ma fay leen ndax allahu wa a axaqu an yurduuh in kaanu muminin yàlla nee na man ak sama yonent maa gën a yey ñu kontaan bul tan nit ñi kontaan bul ut li ci poche nit ñi bul soxla xaalisu nit ñi bul jàpp ni boone yàlla neena kenn du la jox bul jàpp ni boone nee yàlla nee na sa wërsëg dagg bul jàpp ni boone yàlla neena kenn du la faale déedéet yonent yi dund nañ ba de lan mo nekkon seen shiar lan lañu xamé won yonent yi moy in ajriya illa ala allah non la yonent yi doon in ajriya illa ala allah yonent boone won ni mo na he man fayu yàlla lay xaar CFA nga may jox daa tuuti euro nga may jox daa tuuti dollar nga may jox daa tuuti xam nga man lu ma bëgg fayu yàlla in ajriya illa ala allah borom xam-xam bu xaarul lii nag préparel nga toog nekk ci dëkk bi nekk escalier bu ñuy jaar di def lu bon nga di ko saxal bis boo deewee ba dekki di nga xam li taxoon borom bi jox la xam-xam boobu pour nga wax nga wala pour nga seetli ndox nit ñi.